rakku baay Mor Baye Mor tamit ñu ngi koy masaw mu ngi foofu. nañu àtte nañu ànd àtte mandat dépôt yi. Ah, nañu ànd àtte mandat yi ñu xam fu ñuy taxawee mandat dépôt yi bàyyi bàyyi nañ leen àtte. correctionnel yi metti na trop trop trop nañ leen àtte ñu xam fu ñuy taxawee. remise de tamit bàyyi ñu dimbali ñu si dañ koy ñaan état bi te yàlla tax longue peine yi ñu dimbali leen ku si mel ni Thielé Mansour Diop. Jalle yàlla na ko yàlla may xolu muñ nañ ko geesu waaye Baye Fall la barki leeru alxuraan xëy na. waaw mbokk internet Actubuzz TV jërë ngeen jëf ñu amati mbégte contentement bu baax a baax ñu ngi amati mbégte bu baax tey ñëwaat biir Grand Médine sama koona sama dëkkuwaay ñëwaat ci li nga xamante mais ñu seet tey benn ndaw boo xamante ne Baye muy benn porteur de voix boo xamante ne ràññee nañ ko trop ñun ci réseau yi ràññee nañ ko tamit moo xam ne mu ngi koy chaque jour mu ngi ci xeex di ci wax ñu ngi di démb tamit ñu gis tamit ay jafe-jafe yoo xam ne am na biir Grand Médine mais Babacar doonaa def di fàttali nit ñi li nga xamante mooy garab gi day faj leen képp ku ci soxla daf ñuy woo si suñu numéro téléphone 77 745 koo xamante ne dafa impuissance wala koo xamante ne dafa am awar bu dellu wala koo xamante dafa am hémorroïde yooyu la garab gi di faj muy nag mbir mu am solo nag boo xamante ni day kilifa yi mag ñooñu yëkkati ko suñu loxo jox ñu ko ñu siy doxal di bàyyi bàyyi pël mu nuyoo waxtaan ak ñi nga di ko moom mastaw nag parce que fekk tamit ak blessure bu metti mu def ko ñaan yàlla su bi tamit parce que ferte Grand Médine nga que ñu ngi lay tiitaroo tamit ci town bi gis nañ sa taxawaay ci dëkk bi ñu ngi lay nuyu ba di la siyaare. Mourou Ndiak Abou ndeysaan maa lay fay di la bëgg bu baax yow sama waay nga waaw nañ benn émission si weeru koor gi xam nga waaw di ñaan tamit yàlla xam nga lii nuy waaja a sumb tamit yàlla nañ suñu borom jàppale tamit quoi waaw di nuy àdduna ñëpp di nuyu Sénégal ñëpp di nuyu monde entier waaw di jaale tamit moom la su ñi nga xamante ne ñoo dee si ndox mi. bari na waaw ñu ngi leen ñu ngi leen di jaale bu baax di leen masawu seen i waajur di wax xam nga am nañ yaakaar si ñoom daal xam nga di masawu képp ki nga xamante ne xam nga am nga si mbokk wala doom wala égal égal quoi. waaw di santaat waa Garaam di bëgg waa Garaam di sant waa Garaam sama dëkk. Mhm. waaw di sant ñëpp. Garamin du ma lim maa sant ñëpp ñëpp ñëpp xam man awma lu dul Garamin lu dul Garamin Garamin moo ma ko gënal na Serigne Touba Mbacke ku ma naw Garamin moo tax naw ma ku ma jàpp Garamin moo tax nga jàpp ma fii lañ ma waxalee lu bon fii laa bëgg ñu waxalee ma lu baax waaw fii laa ñàkkee fii laa bëgg amee waaw Garamin mooy suma lépp maa sant waa Garamin ñëpp di bëgg sama DG ñëpp ñëpp ñëpp bëgg booy banlieue 13 yi di ñaanal suma rakk ji tuddul moo fi am tey mm. di ko ñaanal xale bi màgg xam nga ñaabu ndaw dund ba waaw bay teral ay waajur moom ñëpp ak ñu ñu si xaj baax di la sant bu baax a baax ab li nga wax ni am na solo loolu Baye Peul nga yàgg porte benn combat am looy xeex ci biir Grand Médine amaana combat bi a deux cent pour cent am nga loo ci gagné parce que yaa ngi xeexal tey ndaw ñi ñu ngi si prison yi yaa ngi xeexal tey xale violence ci mbedd mi yaa ngi xeexal xale yi jafe-jafe yi doomu adama yi di mais tout le temps que dañuy gis ay incident di am tamit si ci dëkk bi nit mënu ci dara nag parce que ndaw ñi amuñ jàppuñu si dara mu waral lu ñu gis bëgg see jàpp loolu mooy indi jafe-jafe mais tout le temps sensibilisation bi nga def ci ndaw ñi loolu lan la may pël. waaw loolu mënul ñàkk quoi waaw parce que temps bi nu mu demee ku jàngul sax xam nga ko. waaw metti waay bi fépp la ku njëkk yuuxu da nga ragal waaw te booy amaana damay nekk ak ñoom xam nga li ma la wax waaw day dëgër sax si ñun ñun ñuy di wax. ñun léeg nit ñi naw ñu ba si yow abu léeg nit naw la nga am soxla boo xamante ne gaan war ko faj te nga nekk borom jom munoo ñaani munoo abbi mais ngor giñ la giñ la yaree mooy waral nga ànd ak sa maîtrise toogee ko mais léeg-léeg nga am xale yoo xamante ne tamit xëy na xam nga yar nañ leen sax mais fi muy toll la ak sa moroom ak fugu de jeunesse ak nga nekk booy moo waral yu bëri doo mun a moytu moo moo waral tamit man booy nii damay damay xam lu ñuy dund te xam naa ne booy ku leen jàppale ñu dem war na Seydina Mouhamed genn waalo booy yëpp ku si génn su gisoon journée 3000 dem jàpp ko booy yi ngay gis fii xoolal fii ñaata jeunes ñoo fi nekk ñaata booy yi. Ah. tey lan samedi samedi da nga doon reyante pour dem atelier jaante ko pour am mais dëgg tudd mooñ kii même nee naa bi saa yoo fiy lii moo fi nekk booy bëgg nañ am si luñ jàpp mais dañ ko gisul da ngay am na boo yoo xam ne dañuy toog at les week-end samedi di maanaam lundi ba mardi ba mercredi ba jeudi ba vendredi ba samedi suñ ñëwee suñ doogaatee si koñ bi barki alxuraan da leen di gën a sax dem seen atelier parce que ni ñu xëyee noonu la ñëwaatee te yenn booy amuñu ngor xam nga di ma ñaanal booy tamit yàlla sunu borom xam nga yokkal leen doole quoi état bi tamit état bi état bi na génnee projet yi jàppale booy yi wóor na Serigne Touba Mbacke nag jàppale booy booy bonuñu barki leeru alxuraan booy nii ngay gis nii amaana sunu kër yi la rek ak nu mu demee te judd judduwuñu si alal xam nga fekkuñu alal fekkuñu yaay yor fekku ñu baay yor waaw day metti yàlla bu mu si doon booy boo xamante ne seen waa kër xam nga sa yaay location lay xam nga rek. waaw wóor na sëriñ Touba Mbacke affaire dafa métti nañ ñëw jàppale booyu quoi nañ ñëw jàppale booy dimbali ñi si kaso bi ba pare jàppale ñuy tikki ñu tukki ji woon dem immigré ji nañ leen jàppale utal leen ay kayit taxaw leen ndax loolu tamit ndamu dëkk bi la ndax sa benn grand frère tey bu tukkee sa ndam la di nga xalaat ne sa ëllëg mun na neex hmm. waaw kon tamit nit amul dul mbokkam nañ jàppale ñooñu dem tukki ji ñoo waaw xam nga di wax tamit man la suma état mu gën a tegaat loxo si jeunesse bi jeunesse moo ko xeexal wóor na sëriñ Touba Mbacke jeunesse bi ñoo ko xeexal. billaahi wallaahi wa taalaahi lépp booyi la kon na tourné waat gëstuwaat booyi bu baax a baax baax a baax duggaat si biir booyi temps yi noonu la garaam yi din beexeeree bàyyi barki leeru alxuraanu karim da nga jamono ji noonu la garaam yi din beexeeree ndaw ñi soxla amuñu ku leen jàppale sunu état bu njëkk bu fi nekkoon ay ñoom kii ñoo fi nekkoon Tidiane Diallo Ahmed Thiam grand Youssoufa Niang ñooñu bu ñu bàyyi bu ñu bàyyi waaw dama koy tudd moom parce que daf ko def gaan gi bu naaj mooy lépp barki leeru alxuraanu karim da doon jël alalam di ko def si biir booyi waaw ñu koy wax bu mu bàyyi ñu ngi koy woowaat Youssoufa Niang moom mooy sunu lépp moom marqué na empreinte am ba pare wóor na Serigne Touba Mbacke mu neex mu nakari marqué na empreinte dañ koy ñaanaat di ko waat mu gën a ñëw jàpp si di waxaat Tidiane Diallo na si ñëw jàpp Ahmed Thiam na si ñëw jàpp Mbaye Diédji ba léegi bàyyiwul kenn du moom muy sunu ancien président ay ses Grand Médine kenn du moom làmb caatu bi gëm naa ne daf si nara a waaw di ko ñaanal yàlla yokkal ko xéwal ay ñoom lamit Dias yi ay ñoom Kéba Diédhiou xam nga 100 cent Grand Médine yëpp di ñaanal tamit Maron Maron Maron moom it day si affaire yi barki leeru alxuraan da siy jàpp bu baax muy si biir muy si sama damm bi bàyyi moo faj moo dugal si man alal boo xam ne xam nga mënu ko wax moom laa am si ma nit bi nga xamante ne su amee sama soxla ñeme naa ko parce que koo foowandoo ba ngeen di ndaw ba màgg ba mu takk jabar nga takk jabar ngeen sekk ay millions soo waxee sax nga gis mu bàyyi la ak moom noo kooku góor la lu jafee ngi noonu xaalis jigéen lu yàqu moo ko yàq mais soo amee nit koo dundal ba ngeen yegg foofu kooku jàppal ne sa nit la waaw bu amee rek nga am maa ngi koy ñaanal jàmm ak soxnaam ak tout tuut tànkam di waat Youssoufa Niang mu ñëw jàppale ma dama am làmb yoo xam ne dama ko soxla ay làmb capital la muy làmb Grand Médine parce que lu tax ma soxla dafa am maana dafa am defet si mook boo jinne te si combat la jugee ndigal dafa am defet si combat boobu mu jugee amaat combat caatu dafa am defet amaat combat kon làmb financière la quoi ay amel konda sama baay faal bi taalibe maam borom daaru bi maa ngi koy ñaanal sunu borom suturaal ko may ko ndam di ko wax mu gën a samp tànk yi ne ngeen yaram bi ñoo si ginnaawam di si woo àdduna yëpp di wax autorité parcelle yi tamit nañ génn jàppale booy Ahmed Konda lu muy dégager si ful wóor na Seydina Mouhamed boo ko xoolee romb na fépp àdduna parce que moom baay Fall la gars dañ koy wuy si mais Baye day metti après si booy nañ jàppale booy bu ñu xaar ñu booy di leen woo nañ ñëw ñu jàppale booy yi nañ jàppale Ahmed Konda maa ngi koy ñaanal ndam si làmbam ji booy Bekaay tamit Bekaay maa ngi koy ñaanal ndam si làmb ji booy baari baari hmm. baari baari ay ñoom Zarko maa leen di ñaanal ndam sama bu rakk ji Vieux Ngolo am na combat Vieux Ngolo eh? waaw eh kooku jàmbaar la keroog maa moom ñu ngi si laaf bi xool bu rafet la yor Vieux Ngolo man dama ko estimé nag barki Seydina gis ko ay mbalagam ay cëfër cëfëram xool bu nice xam nga léeg-léeg nit ñi ni muy waxee melul noonu xoolal na muy jëfee mm-hmm. waaw Vieux Ngolo maa ngi koy ñaanal ndam waaw doomu sanzala bi. Hmm. dofu sanzala bi maa ngi koy ñaanal ndam. di ñaanal sama booyu amagul combat yi yàlla gaaw mooy leen combat ku si mel ne Alburi suñu yaakaar waaw combat moo Zekom taxul ñu war ko seetaan nii Alburi mbëru town la mbëru Dakar la billaahi wallaahi wa taalaay barki leeru alxuraanu karim Alburi grand combat ñu jox ko ko ñu pare grand combat bi na Serigne Touba Mbacke ñoom ñu doyal stade doyal ñun dañoo bokk si làmb ñun saa ñu génnee mu leer waaw Souleymane Ndiaye waaw moro moo kaay ko kaay woo ko nga woo ko moro kaay woo ko parce que danga war a woote lamb yi gis nga nu mu demee grand min temps yi bàyyi affaire dafa tëddee jaaxandaay gaan affaire dafa metti wóor na Serigne Touba Mbacke moo tax may mun a di wax si Youssoufa Niang ay ñoom Tidiane Diallo parce que ñooñu dama dañuy jël seen xéwal di ma jox di ko jàppalee booy kon ñooñu gis la yoon la nga gërëm leen ku si mel ni tamit Modou Mboub Modou Mbuub Star oto doomu yaay Buur Sita Modou Mbuub waaw borom kano borom borom borom borom Medina ñi ngi koy woo maa ngi koy woo bu baax ñëw jàppale ma sama booy yàgg na si jàpp nañ jënd si ticket yi ticket yi laa leen wooy ku si wel tamit ñoom Babacar Sow booy yu nekk États-Unis ñoom bas wësanda ñoom Mor Gaye gaayo nañ ñëw jàppale booy si làmb yi bu ñu xaar ñu woo leen parce que ñu ne ñoom ñoo ko ànd si lépp waaw di ñaanal sama baay faal yi nii ma la su ma yàlla may leen dam gaar wóor na alxuraan pël dañoo gis euh, démb ak barki benn jéyee bu am fii ci li nga xamante moo ci canal bi mu nekk mbir moo xamante ne naqar ak tiis ah, di jaale tamit ñi nga xam ne mooy famille waajooju tamit ah, yàlla yàlla suñu borom may leen xolu muñ parce que tey sa njaboot mu réer la wala gisoo ko nga ñëw gis ko ci ñàkk bakkanam mbir mu diis la tey ñu gis loolu Grand Médine tey ngay porte de voix biir Grand Médine tey lan ngay wax ci loolu. waaw man fi may njëkk waxee rek mooy ne que affaire yi xaw na diis torop suñu ndax côté pont boobu ñu ngi fay dégg lu ne bàyyi si ale boobu ñu ngi fay dégg lu nekk. te tey yoon la tey état mu def liggéeyam parce que man jaar naa fa ay yenn heures yi heure damay fekk policiers yi monter si digg pont yi si digg pont bi lay policiers yi di monter kon yaakaar naa ne bu policiers yi di monter foofu noonu yaakaar naa ne waruñu toog di dégg yenn jay xaw ma nag li fi am démb li fi am démb ku digg si kanaal bi parce que dañoo toog ñu signaler ko gars yi gars yi di seetaan di seetaan loolu laa si toll gars di seetaan ma ñëw laajte lan la. ñu ne ma daa am ku nekk si kanaal bi mais boo demee xool tey dangay xam ne kooku noonu foofu du du loo xamante ne moom dafa maanaam dafa naan ndox kuwaa te foofu man li ma si gën a jaaxal centre boobu noonu noonu dañ ko dañ ko collecturé waaw kooku moom moo fa dugal boppam walla dañ ko fa dugal man loolu moom moo jaaxal sama yaay ñu noonu sama yaay woy waaw booy internet ah? ah? yi may moom mooy yaayu xale yi. sama yaay boobu sama jabar la nag mais dama ko fase ku waa esa loola tax buy siisu di xam nga waaw yaa ma gën a xam yaa ngi ñu xëy ñu tàgga ñu ñu ne daa am ku lab si si biir canal bi loolu mu nekk benn affaire boo xamante ne bàyyi lu ñu jaaxal la parce que tamit ñi ngi naan ay ba mu génnee naak naag yàquwul mais instant bi kenn mënu si xam dara ki ci mun a xam dara mooy ñuy def autisme te pour mu leer côté boobu noonu am na caméra surveillance caméra yooyu na ko état bi ñëw taxaw ñu jéem a lijjanti loolu noonu jéem a xool loolu lan la quoi xaw ma nit ku ku wér la wala ku wérul parce que yegguma si moom ñi lay wax ñëpp dañoo gis nii rek dañ ñu ko wax benn taximaan moo ko fa waxe ñëw seetaan ñu gis ko saapoor jël ko yóbbu mais nag dañoo xamul audit bi audit bi lan lay génnee xamuñu dañ ko rey xamuñu dafa dee dugg foofu xamuñu daal égal waaw kenn mënu la wax ne la que carrément nii la affaire bi demee mais daal ñi ngi ñaan état état bi ñu ngi koy ñaan mu defal ñu sécurité bu gën si sécurité yi quoi ci côté boobu noonu parce que tey li tax ma koy wax ñëpp yemuñu quoi am naa sama benn booy maa ngi koy masaw bu baax Mouhamed saw jour combat Balla Gaye bi lañ ko fekk sama gét jël ko ne ko da am foofu plaignant di ko jiiñ benn agression boo xamante ne foofu la mu leer na la loolu noonu ñu ko jiiñ ñun xam nañ du moom gaa yaa ngi nii du ma waxal du ma wax lu dul dëgg si micro laay waxee barki leeru alxuraanu karim tey bu foofu amoon sécurité tey moom ñu dugal si loolu ndax booy boobu dafa amoon benn nat génn hmm. def deux ans génn barki alxuraanu karim mais li ma si gën a jaaxal dañ ko jël si parce que dañoo def pelante ñu étudier bu mu étudier ñëw fekk ko jàpp ko bañ ko jàppee ñu dem police ba ba ñu waxee waa dafa moom moo ko doon agressé xam nga loolu kenn mënu si dara parce que tamit moom it lu mu yaakaar la wax mais ñun man sama akulaay taalaay du moom ndax jour boobu la tombé combat Tafa Maada bi ñu am defet bañ demee dañoo ñibbi ba ñu xëyee maa moom ñoo nekk ndax maa ko kon yaakaaruma kooku moom tey moom mu def loolu. ah di ko masawu di ñaanal tamit booy nekk si kaso bi yëpp. waaw yi woo ma waaw ñooñu samay nit lañ samay deret lañ dañ ko àndandoo si lépp natu moo di kerkeraan kulli awliyaa ku weddi laajal xayrul lan bi yaa yàlla xarit ba lay musu baal. Mhm. mbaa mu doon ko muy baal. Mhm. waaw parce que tey ñoom du seen bonte nit day def sax du bugg dugg kaso. duggu kaso. kon loolu day doon li nga xam ne natt suñu borom waaw bu la yàlla nee da nga fay jaar ala kulli al nit mënu la ko xañ waaw kon ñu ngi leen di masaw bu baax di waxaat état bi jour campagne am na ku ma ci woo benn waaye bu ñuy wax Fallou ndeysaan xam naa ko de jàmm gën boobu dëkk mu ne ma abul ma nga jël Bible mu jooyal ñu ñu ngi sonn campagne gars yi ñu gën ñu kuur paa bi may nees ñu leen i ñoom jour bu ñu leen i débéyagé ah ah. di leen indiwaat 100 mètres paa bi si la bokk ak Fallou Izi Fallou Easy maa ngi koy jaale waa town bi yëpp di ko ñaanal fu mu jëm yàlla na ko dàqal fu mu jugee xëy na moom lañ gis moom lañu ñu wax man am naa fa benn booy daam rakku baay Mor Baye Mor tamit ñu ngi koy masaw mu ngi foofu nañu àtte nañu ànd àtte mandat dépôt yi ah, nañu ànd àtte mandat yi ñu xam fu ñuy taxawee mandat dépôt yi bàyyi baay nañ leen àtte correctionnel yi bàyyi metti na trop trop trop nañ leen àtte ñu xam fu ñuy taxawee remise de peine tamit bàyyi ñu dimbali ñu si dañ koy ñaan état bi te yàlla tax longue peine yi ñu dimbali leen ku si mel ni Thialé Massoud Diop Thialé yàlla na ko yàlla may xolu muñ nañ ko geesu waaye baay Fall la barki leeru alxuraan xëy na Baye Ndaw moo demee noonu mais du tayfam du li nga xamante ne moom la bëgg bu soñoon tey du demee nii barki leeru alxuraan chaque jour mu ngi si biir suñu déggantee xam la la may wax moytul del dàpp jàpp di julli del fonk sa waajur del liggéey te moom mi ngi foofu kon kooku di la wax loolu kon moom conscience tranquille la mi ngi foofu amaana foofu ngay toog di gën a gis yu bëri di xam ne lu booy di daw yëpp erreur la waaw erreur kese la gars yi di daw parce que daw ci milieu amul sens quoi sonal sa waajur la sonal sa bopp parce que yow tey li nga siy daj yow risque suñu borom rek moo lay dimbali dimbali suñu borom parce que si risque ngay daw mun nañ la rey mun nga si dem kaso mun nañ la si yàq mun nañ la si def lu nekk. benn boolu añ boo xamante ne tubéy koy takk musóor yi rek ak sëri suñu sëri yaay. billaahi wallaahi wa ñu ngi masaw suñu yaay bu baax a baax di wax képp nga xamante ne am nga sa mbokk si biir kaso bi nga koy nemmeeku di ko seet di ko bàyyi xel parce que loolu am na solo trop quoi parce que kooku tey ngay seet si biir kaso bi di nga koy yokkal benn code boo xamante ne dinañ xam ne kii du vaurien xam nga kii du du du du colossar quoi mais nga bàyyi nit xam nga muy sa mbokk nekk kaso da seedaan ko dafa ñaaw waaw maa wax ñu ñu ñu bàyyi leen xel bu baax a baax di ñaanal trent 37 kaso yi trent 38 kaso yu nekk région Sénégal bi maa ñaanal ñëpp fu nekk la may booy di wooyee. wóor na Seydina Mohamed parce que li ñu leen di ñaanal nii dafa gën ko waa. waaw que kaso bu ñuy tëdd. dëgg la kaso mënul ñàkk si àdduna kenn mënu ko si dindi ku def ñu teg la si yoon yoon kaso bi la fi nekkal mais tey par exemple tey boo yi nga xamante ne dañoo dugg kaso tey cinq par exemple wala quatre ans amoo fa métier jàngoo fa dara boo génnee tey par exemple yow mun nga ne ko bul toog si booy demal nga liggéey demal nga liggéey gisul lu mu liggéey nga ñëw may ko junni toog loo ko mu toog seen kër yow nga xëy war a dem liggéey ji moom amul lu mu liggéey fu mu jëm bu toogee kër ga ba pare day demaat di ñëw si booy di dem du ko bëgg mais à la pile aar fa lay mujj ndax boo amul loo def rek da ngay xool foo toogi waaw te toogu waaye léegi bëri na si dëkk bi ba nga xamante ne ñàkk am lu ñu occuper moo tax toogaay bi am si biir dëkk bi kon nañ jàppale booy yi waaw nañ jàppale booy bu baax a baax a baax a baax wóor na naa Mohamed booy ay yaakaar lañ bàyyi baay kër yi kër yi nii neexul de <laughs> kër yi wóor na Serigne Touba nga gis benn booy mu seen mel ni per mais boo demoon kër yaayam wala nga fekk ko seen kër danga naan noonu mais moom day sagal boppam parce que dara waragu ko yaay yi dañuy lijjanti ji ndékki buñ ko amee di dawi ji di añ wala reer papa yeeg ñoom seen comme waaw <laughs> Aliou Baba ko man naar jàmm ko dëgg waaw ñooñu eh mooy li may wax tout le temps. man loolu moom déggoo li ma la wax. ñooñu dama dégg ay booy jàmm gën ñaan ñu ngi sant Baye Peul Grand ma ne waaw mais yéen Baye Peul dëkk parcelle. waaw mais waaw mais jàmm gën. man ak Baye Fall dañ ko dund waa si dëgg. parce que dama naan nit bul nangu ku la yàqal sa nit. foo dëkk. dëgg la géej sama waay nga. lan moo koy dindi. dara ko dindi koy yàq te keneen du ma ko yàqal. déedéet mais ñaanal la tey mm-hmm. taxul ma ne Siteu yàlla na ko Modou daan taxul Siteu yàq mu yàq sama digganteeg Siteu dara taxul mu yàq sama digganteeg tarkindaay dara parce que benn tàkku saan la ñoom dañuy liggéey ndax bu ñu bëreewul woon Siteu tey dina am lu mu yóbbu gaaleem ah te moom société la li nekk si am dafa bëri loolu gars yi nangul nañ ko ko moom moo ne liggéey ngir sa dëkkuwaay yokk doole ngir say noonu Siteu suma waay la dama ko sopp barki leeru alxuraanu kër amaana waaw làmb ji moo ñu xaw a jaaxal rek si ay mbir <laughs> moom xam na nu mu demee mais moom Baay Faal la waaw mais dama koy wax mu gën a taxawaat dëgër waaw parce que làmb ji tamit bërëdë bi dafa soxla de ah. moo du nii <laughs> waaye solo gaa bi laa leen may sax ne leen wàcc sànni la nag am mbeñ la am pes am xam sotti ndox yi mi ko feeñ France direct danaa la bu parcelle bi jógee Cambérène bi jóg Grand Médine bi jóg Grand nga gis Diamaguène bi jóg ah. ah Fora bi jóg <laughs> yàlla na yàlla def jàmm ñu ngi si woo ñëpp si bis boobu noonu xam nga ñu ngi woo ñëpp si tekk tey dans la discipline yar ak teggin Siteu ak Modou Lo ah. ay ndey ak baay lañ làmb ji jaaxal na ñu bari mais làmb la nag dañuy bëri de. dañuy bëri borom jom la Modou Lo borom jom la. te foofu góor ku si daanu rus. te jàmbaar dëgg. victoire moo ko gënal sax àjjana. kon gars yi duñ liggéey ba toll fii di ko cor ko cor ko làmb ju gën a mag si année bi moo ngi nii. di si ñaan jàmm bu baax a baax a baax yàlla sunu borom defal ñu ko di bëgg sama ta cent pour cent tarkindaay samay waalañ làmb taxul ñu war a dund dama fay dem lu mu amoon soxla léegi jaama gën dama fay dugg ñoom bu ñu amoon soxla fii léegi léegi dañ fiy dugg waaw kon làmb du ay coow làmb du ay ay cest diir dire léeg-léeg yenn booy ñooy toog seen ginnaaw téléphone yi xam nga di wax loo xamante ne yow mu leer na la ko yow xam nga waaw benn kii nga si nii rek waaw mais bu gaa yi yàq diggante dañ ko def si fair play après mu jeexee si fair play di a Abdou Seck di bëgg sama waa dëkk Grand Médine aw ma lu dul ñoom te topp ma lu dul ñoom waaw ku baax nag bëri mbok ñëpp sumay nit lañ waaw maay bëgg àdduna ñëpp di ñaanal Ahmed kondaa si làmbam ji yàlla may ko ndam Marley bu yaboo na nga waaj solo gan bi yéen ñëpp laa ko jox rek ñu ma amal combat. mais lamb ji mopp soog lamb si biir lamb la lamb njër dem la na gars may ñëw may amee konda bologu tike yi. xam tey ku ne <laughs> mais caatu peel bi tamit yàlla na ko yàlla may ndam moog zos zos bu yaboo nga xaar. amiin waaw wër na dina gi dina génn si ni nga xamante ne buggee ko woon noonu te saa su ne maa ngi laaj muy dugg naan ma mafia bi laay tas. mafia bi dafa dis de. Ah, ñëpp. avance bi mu jël. këll Madialla ku ko lekk da ngay takk laxasaay dem sikoori. Tafa Maada am na combat maa ngi woo autorité gram yu jàpp si. ndigal sama rakk ji am na combat. Albouri dama bëggoon ñu jox ko combat étoile Jolof a ngi nii jóge si làmb ju mag. munul bëre ba ba léegi na ko gars yi jox combat na gars yi génnee combat Fouta production ñoon duma ma di leen tudd ndax ñoom man ak ñoom ñoo def nii waaw Iboulaye maa ngi koy wax mu gën a ñëwaat jàpp sama booy di ko wax làmb ji mu tëgg zos ak caatu piol bi tëgg na làmb ju garaaw te làmb ji insha allahu rabbi dañ koy waaw kooku suma rakk la waaw na ñëw waxaale si waaw ah, Taba Mara <laughs>